docteur Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Soxna Ndeye. voilà docteur Cheikh Seck nga nekk secretaire général bu fédération des syndicats de la santé nekk médecin foofule euh, ci hôpital général Idrissa Pouye bu Grand yof euh, samedi bi tey ñuy màggal bés bu ñu jagleel euh, xeex wàllum arthrose mën nga ñu wax arthrose mooy lan ak maladie bi naka lay ñëwee exactement. physiothérapeute la ci service de médecine physique bu hôpital général Idrissa Pouye arthrose nag euh, boo ko tuddee malade la boo xam ni euh, lu lay malade la boo xam ni lu yàgg la cest à du gaaw wér mën nañu wax ni sax du wér feebar bi nag li koy indi moo di euh, boo xoolee nit bëri ay articulation articulation mooy foo xam ne ñaar yax dinañ fa dajale te leneen lii mën na nekk ay suux wala ay euh, ligament wala loo xam ni lu mel ni ay genre cartilage la parce que loolu mooy permettre euh, nit ki foofu mu nekk mun koo lem maanaam mbagg mi nga mën a yëkkati sa loxo bu dee coude bi la même chose bu dee poignet bi ndigg bi hanche bi genou bi ba ci cheville bi mais arthrose bi ñu gën a xam mooy arthrose bi nga xam ni moom moo nekk ci genou ñu di ko wax gonarthrose arthrose nag dafa bëri ay cause mooy nga xam ne moo ko mën a indi. li ci hmm. ëpp la plupart du temps euh, moo di nit ki dafay am pois boo amee poids nag diisaay boobu day wàcc boo wàccee damay wàcc day fekk ne ñaari yeex yi nga xam ni ñoom ñoo nekk diggante articulation day dañuy dajalante bu dajalante day xoosu xoos moom mi ngi mel ni nga amoon sa benn doj wala sa xeer rek di ko xoos bu yàggee dafay dem ba nga xam ne dafay jeex loolu mooy indi bon arthrose nag euh, ni muy ñëwee nit ki daf lay wax toujours bu yegsee sama tànk bi day metti bu dee arthrose par exemple genou waaw li koy déclenché toujours mooy mu def benn euh, effort mm. mécanique maanaam soit mu dox lu bëri wala mu lem tànk bu lu yàgg wala mu yëg ci ay escalier wala muy def vélo et la plupart du temps boo ko seetee rek boo lemee tànk bi day metti wala boo ko tàllalee day metti parce que tout simplement li ngay lem day indi xoos xoos xoos xoos mooy indi douleur léegi nag pour nga mën a xam def diagnostic foog nga def li ñuy wax rajo rajo simple rek mën na génne arthrose boobu boo xoolee diggante interligne articulaire yi maanaam diggante li séparé ñaari yax yi da ngay gis ni espace ba fa waroon nekk dafay gën a tuuti waaw bu gënee tuuti nag nga xam ni dañuy jegeyoo lu jegeyoo nag xoosuwaay dafay yomb beneen bi kat dina dem ba nga xam ni dafay am euh, ay genre yax yu sew sewaan yu fay développé wu loolu la ñuy wax ostéophyte loolu boo ma mënee xayma mooy. bu kum xam bu nekkaan xale daa nga gis ay pont pont bu yàggee ci suuf nu muy xuure noonu xuuraay boobu day da ciy da ciy nekk dina dem nag ba nga xam ni parce que ku nekk xam na ni yax partie bi nekk ci kaw genre cartilage la cartilage nag boo defee rajo normalement warul a feeñ bu dee feeñ rek euh, xamal ni foofu am na ay suñu arthrose moom la ñuy wax hypercondensation boo xoolee ci cliché bi ci cat yi foofu ñu nekk day weex tàll buy xetaal par rapport ak yeneen yi day am différence loolu moo lay wane ni loolu tamit signe tartose la dina dem ba nga xam ni euh, mu li ñuy wax stade 4 euh, day am lu ñuy wax ay géodes géodes nag boo gisee mooy day mel ni fu max jaar boo xoolee ci max jaar da nga gis bant boo xam ne ay max dañ koo lekk ay bën bën yu sew sewaan lay def yu bëri la plupart nag bu tollee foofu dafay nécessité ki nga xam ne mooy chirurgien orthopédiste bi intervenir parce koy opérer pareen saa yi nag di nga am feebar mu dal la li koy indi nekk malformation wu yax yi mooy ñi nga xam ne dañu am ay tànk yu rënki tant que ñu ngi nekk xale mën nañ ko bañ a yëg mais bu ñu dem ba nekk mag dañ koy sentir parce que yax bi dëngaay boo mu dëng ca cat ba ñu nekk dafay xoosante xoosante boobu day dem la plupart du temps nag dañ koy opérer li ñuy wax ostéotomie loolu nag chirurgien orthopédiste yi ñoom ñoo koy def maintenant bu dekkee dem na ba nga xam ne établi nañ diagnostic bi par exemple saa mën na nekk ay laxité ligamentaire parce que articulation dafay am lu koy téye surtout genou mën na nekk ligament yi mën na nekk ménisque bi mën na nekk euh, capsule bi Euh, mën na nekk muscle yi mais bu ci amee benn boo xam ne rek dafa am jafe-jafe rek dafay créer des équilibres donc loolu day nécessité par saa yi boo defee bilan nga mën a établir benn protocole de traitement su fekkee ni par exemple muscle yi ñoo faible mën nañ servir d'amortisseur su ko defee di nga def travail de renforcement muscle yooyu donc ci loolu lañu nekk comme travail par rapport ak muscle nga xam ne mooy muscle surtout quadriceps yi mm-hmm. ak muscle léegi waaw allez-y monsieur waa dem monsieur Cheikh ñu ngi lay déglu. voilà donc bu bu ñu defee loolu. donc nit ki nga xam ne tey jii am na arto di ko jox ay conseil lu ñuy wax conseil hygiéno-diététique maanaam tey jii bu fekkee ni par exemple dafa dëkk ci étage bu mënee dëkk ci suuf moo gën parce que boo dëkkee ci étage boo amul ascenseur da ngay yéeg ay escalier donc escalier yooyu ngay yéeg dafay dafay dafay xoos mbir mi. dañ lay tere aussi nga def vélo man gis naa ñoo xam na daal arthrose baa a yokk hmm. laaj ko nooy fajee mu am naa vélo kër ga jënd naa ko damay def vélo ma ne ko yow hmm. a aggravé sa arthrose arthrose rek loolu bañ tout ci boppam day accentuer surtout résistance hmm. day accentuer xoosu xoosu bi koy waxee maintenant il faut que impérativement aussi mu fexe euh, li nga xam ni bu dee da nga am poids nga xool li ngay lekk aussi mu bañ a nekk loo xam ne da lay jox poids di ko yokk yooyu loolu aussi élément la boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy conseillé. ci pour moytu arthrose moytu affaire moytu arthrose. docteur Cheikh Seck euh, hmm. arthrose am na euh, peut-être ñu ne am na ñu mu gën a sonal muy mag ñi est-ce que loolu dëgg la que mag ñi la arthrose gën a yab waaw wala déet. waaw ñoom la gën a yëpp parce que xam nga nit buy buy màgg wala buy màgget bokk lépp loo xam ni d'ailleurs même dañ naa la sax neurones booy doog a judd li nga am ci neurones du yokk dafay gën a wàññeeku c'est-à-dire plus que ngay màgg sa milliard neurones yooyu nga xamoon dafay dafay gën a wàññeeku de la même chose lépp loo xam ne substance la buy dundal yaram dafay wàññeeku muscles yi dañuy dem sa sa sa sa sa vaisseau yi dem dañuy def ba nga xam ni dañuy dañuy dañuy màgget boo gisee tax nit bu demee mag yaram bi da ngay gis muy lax du bokk ak bu mu nekk seen muscles yi nan mu demoon daawul demee noonu donc or muscles yooyu ñoo daan servir ay amortisseur ci yenn zone yi bu demee ba faible day am laxité loolu nag dafay yombal yax yi mën a laalante loolu tax problème mu rhumatisme sax dafay bëri ci ñëpp ñi nga xam ne ay genre mag lan xam nga en même temps aussi boo dee nekkee mag dañuy wax lu ñuy wax sédentarisme c'est-à-dire mooy ki nga xam ne du bouger boo nekkee ndaw di nga bouger lu bëri di nga daw di nga def sport mais boo toogee defatoo sport non seulement da ngay accumuler ay graisse mais aussi da ngay da ngay da ngay da ngay empêcher li nga xam ni mooy liquide synovial li nga xam ne articulation ñoo koy sécurité parce que loolu mooy servir de lubrifiant xam nga huile bu fànk mi ngi am euh, machine mi ngi am huile rek day lubrifié wu mais soo bougé wul lu bëri li ngay sécrété ci liquide synovial boobu dafay wàññeeku donc dootul lubrifié wu donc assèchement boobu mën na indi loolu ma lay wax li ñuy wax aw sayfit maanaam comme pont boobu ma la waxoon bu yàggee ci suuf xuur xuur boobu muy indi loolu lépp mën na ko indi donc plus que ngay nekk mag surtout boo amee ba 40 ans déjà signe yooyu wala nga nekk femme buy def ménopause yooyu yëpp c'est yoo xam ni da ciy da voilà prise en charge bi naka lay demee docteur euh, Cheikh Seck est-ce que mm. tamit arthrose bokk na ci feebar yi nga xam ne dafa cher maanaam paju gi dafa laaj xaalis bu bëri waaw wala déet. bon peut-être yaakaaruma moo laaj xaalis bëri lu muy laaj xaalis bu bëri mooy bu mu demee ba nga xam ne nekk nga stade 4 mooy fu ma lay wax naan foofu da ngay xool yax boo defee rajo bi ngi ci mel ni ay semis de graine la maanaam ay bën-bën fu max jaar loolu bu boobaa dañuy teggi yax bi complètement defal la prothèse prothèse bi nag opération bi mën na nekk bàyyi un million et quelque loolu moom xaw na cher. ah loolu cher na de docteur. cher na waaw moom laa la wax bu la moom mais nag mën nga mën nga bul xaar ba egg boobu. Mm-hmm. c'est-à-dire boo eggee stade 1 nga gis ni sa interligne articulaire wax nañ la ñu ne la yow da nga amee arthrose moment boobu nga war a bàyyi lépp loo xam ni tere la loo xam ne da ko war a wan a yokk que loolu mooy prévoir boo ko deful ba mu eggee stade boobu li ngay dépensé dina cher su fekkee ni par exemple yow sa poids da ngay lekk lekk bu bëri accumuler ay graisse ñu wax la nga nga wàññeeku. Mm-hmm. peut-être mën nga bañ a egg stade 4 boobu. Mm-hmm. nga xam ne day nécessité ñu lay ñu intervenir. ñaareel bi aussi euh, éviter li nga xam ne tout ce qui est mécanique ci articulation yooyu nga xam ni dafay yokk xoos xoos bi leneen li wax naa la ko sànq milieu habitation bi am na ci solo maanaam bañ a dëkk foo xam ne da ngay yëg ci ay escalier ak di wàcc en même temps aussi lekk-lekk goo xam ne bëriwul diwlin ak graisse en même temps aussi di def sport loolu aussi dina brûler graisse yi mais dina permettre aussi se sang circuler normalement yooyu yëpp ay éléments la yoo xam ni boo ko defee je pense que mun na la mën na la mën na la prévenir ci yenn feebar yu mel ni comme ay arthrose. Mhm. feebar bi arthrose fu mu toll ci Sénégal est-ce que bëri na am na day am évolution par rapport ak yeneen feebar yi wala néew na ay malades yoo xam ni dañuy ñëw di jàmbat yax yuy metti wala lu ni mel. waaw bëri na dañ ñun ñun fii suñu consultation dañ ciy jot ay malades bëri def arthrose mais mënuma la wax de façon chiffrée ñaata cas d' arthrose moo am Sénégal sérieusement mënuma la ko wax quoi hmm. peut être au niveau au niveau du ministère ñoom mën nañu xam yooyu quoi mais je sais que ne dans nos services am ci ay cas arthrose hmm. bëri du arthrose parce que boo nee du arthrose genou kese pareen saa yi nga am arthrose cervicale hmm. pareen saa yi nga am arthrose lombaire pareen saa yi nga au niveau bu ci nekk rek mën nañ ko wax arthrose bu dee hanche la euh, mën na nekk arthrose ah bu dee bu dee bu dee genou aussi mën na nekk gonarthrose donc euh, yooyu yëpp hmm. ay arthrose la xam mën na mën na mën na mën na am donc bëri nañu ay kaw ñoo xam ne am nañu ay arthrose kon kon kon docteur souvent ndigg yu metti nit di jàmbat euh, souvent wala douleur lombaire comme sama genre gi est-ce que lu ni mel dafa lié ak euh, euh, arthrose la plupart du yu metti ay la xamul tax mhm. ndigg yëpp dafa am neer yu fay jaar mi mel ni nga yoroon sa raakool ndox rek def ko ci robinet bi mhm. di war a arroser fenn foo xam ne mat na cinq mètres nga toog ci yàgg gis ndox mi dafa wàññeeku mhm. parce que am na kenn koo xam ni faraakol bi jaa dafa fa joggi wala mu teg mu teg dara. Mm-hmm. noonu la mel. nerf bi nekk ci diggante ñaari articulation ndigg bi bu fekkee ni euh, ndigg bi dafa wàññeeku dafay comprimer nerf boobu léegi nerf boobu bu ko comprimer trajet nerveux dafay metti moo tax ngay gis fa leen saa yi sama ndigg bi metti mm-hmm. euh, sama ginnaaw cuisse bi day metti ba sama tànk yi mm-hmm. par exemple saa bi fu muy jaar yëpp day comprimer li koy indi mën na nekk hernie discale mën na nekk mën na nekk ay genre spondyloarthrite mais mën na nekk aussi arthrose mais li ci ëpp ay arthrose lay doon. Mhm. maanaam xuur xuur yooyu nga xam ni ay yax la yu bees yu développé wu foofu mën na comprimer nerf bi ba indi douleur boobu donc douleur lombaire yu ci bëri ay arthrose lombaire lay doon. sans pour autant mu nekk hernie discale. boobu faj bi jafe naam jafewul docteur. non jafewul la plupart du temps c'est la kinésie. bon hmm. kinésie la plupart du temps euh, dinañ def travail de décooptation par exemple bu fekkee ne arthrose cervicale la. Hmm. Euh, de traction cervicale. traction cervicale boobu moo ngi essayer de décoapter articulation bi en même temps di def mobilisation xam nga pare saa daa ngi gis bi ñu nekk xale ñu naan la foq ngay jël sa baaraam di foq foq. Mhm. muy nga dégg mu naan koj kaj kaj affaire dama la plupart du temps c' est façon ñi nga xam ni mooy mooy yax yooyu xaw a formé wu foofu ñu mën a mhm. disparaître. Mhm. léegi créer benn mobilité ba nga xam ni léegi dina am euh, une bonne sécrétion de liquide synovial en même temps dina mën a libérer articulation traction cervicale boobu dafay libérer articulation parce que dafay yokk li ñuy wax interligne articulaire bi su ko xasee ba yokk rek li nga xam ne moo doon comprimé comme li ma doon wax raakool bi dañ ko joggi boo dindee loolu ko joggi rek dafay mm. dafay daal di oyof mu permettre nerf bi mën a transmettre les messages euh, normalement. voilà dernière question docteur Seck di laal euh, seen syndicat bi nga xam ne fi ñu toll nii mi ngi dénoncer benn discrimination bu am euh, ci régime indemnitaire euh, agent wu santé yi ba tax nag yéen da ngeen bëgg a amal plan d'action maanaam bëgg a dem grève surtout ci retard wu négociation yi ak état wu Sénégal mën nga ci ñëwaat ak ñun tuuti docteur Cheikh Seck. waaw xam nga jafe bi jafe-jafe bi bi bi bi nga xam ne moo moo mooy jaaxal ñëpp Sénégal mooy état day fi signé accord mais bu desee loolu nga appliqué ko rek par le problème yi njëkk commencé te loolu man mënu ma ko comprendre parce def naa ni soo waxee ni lii laay def na nga ko respecté loolu mooy benn signé nañ accord ak état ñu wax dañu joxe indemnité de logement mais logement ku na xam na ni ku ku kuy liggéey rek soxla nga dëkkuwaay même ku liggéeyul sax soxla nga dëkkuwaay parce que loolu mooy sutura doomu aadama bi ñu demee ba deseel lu appliqué ñu jox ko ñenn ñi ci fonctionnaire yi joxuñu ko ñeneen te ñun xamuñu lan moo ko indi ak lan moo ko mën a wund ñu demaat aussi boo xoolee suñu hôpitaux yi tey ji hôpital ma nekk rek presque am na plus de huit cent agents euh, mais huit cent agents yooyu la fa nekk ci ay fonctionnaires matuñu u bien tous deux cent et quelque la waaw su fekkee da nga jox fonctionnaires yi ça veut dire que trois quarts personnel boobu yëpp amuñu indemnité dañu rafetlu nag parce que état accompagné ñun ba jox ñu benn enveloppe bu huit milliards mais lu ñu jaaxal mooy mënoo joxe xaalis ba pare nga ni léegi ñi am mooy ñi nga xam ni rek am nañ diplôme mais man ñi nekk sama service c'est am naa diplôme mais man su may faj man dong mënumaa faj su ma xëyee suba du man maay dem di jëli ji ay dossier fan ko def ci archive bi parce que malade bi jaar na urgence il faut que mu am kenn ku ma dem a jëli dossier ba ñaareel bi ki nga xam ni malade bi ñëw na malade bi nekk handicapé mais am na ñu koy transporter di ko yenu di ay jee di ko indi ba fi ma ko war a xoolee secrétaire bi moom mooy indi dossier bi moom mooy enregistrer malade bi am na agent de facturation am na ñuy liggéey morgue am na ñuy liggéey ñu ñu ñu ñu nekk ci kaw nekk dans le service administratif waaye est-ce que man dong man fekkoon ne man dong maay liggéey sama liggéey dina mën a sotti bu fekkee ñoon ñëpp xëy si woon wax dëgg dëgg nag nga ni man danga may jox man dong doo jox ñu ci des loolu lañ leen di rafetul logement ñëpp ko soxla te ñëpp lañ war a jox mun donc ñu nangu nga jox ñenn ñi bàyyi leen looloo tax ñu ne nag état moom mooy créer condition yoo xam ne en plus que bëriwuñu fonction publique ñu ne ñu ñu boo xoolee ñu ne war a jox quatre mille personne la quatre mille personnes yooyu boo leen boo leen calculer ku nekk cinquante mille francs d'ailleurs même li gën a li gën a doy waar sax moo di ñun santé rek la ñuy jox cinquante mille dégg ngeen sama mbokk enseignant yi que je salue au passage bi leen joxee cent mille dañ leen cent mille dafa tuuti mais cinquante mille mën nga fee am benn pentre fii ci Sénégal gi wax ma rek fan fii ci quartier <laughs> <laughs> rafetul mais ñun mun nañ ko nga mën a jox ñeneen ñi bañ a jox ñeneen ñi te ñeneen ñi boo leen calculer quatre mille personnes cinquante mille c'est ñaata deux cent millions état deux cent millions tën na ko ba muy ba muy bàyyi nit ñuy grève fii ay ñetti fan ak ñeenti fan deux cent million laa la wax quatre mille personnes jëlal quatre mille personnes nga multiplier ko par cinquante mille francs deux cent millions de francs parce que dafa bëri ay caaxaankat te ñi nga xam ne ñoo nu ko xañ ñaane ñu ko. Mhm. ñoom ñoo toog ba mu neex leen mois bële passé ñu octroyé seen bopp ay indemnité trois cent mille mooy émission spéciale boobu ngeen doon dégg ñu naan état dafa yokk pour le personnel administratif ñooñu lan la ñuy ëppale et ñu ci bëri xam nañ ni daal la fonction ñun bu ñuy dugg fonction publique concours lañ léegi comment la fonction la fonction publique ba pare ñooñu mën a taxaw octroyer seen bopp trois cent mille ba pare duñ duñ ko xañ ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy xëy di gont voilà docteur euh, Cheikh Seck euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal maa surtout si sa disponibilité eh. docteur Cheikh nekk porte-parole euh, eh. bu fédération des syndicats de la santé